gannaaw bu leen nuyoo dañ leen di jaajëfal bu baax baax topp bi ngeen xam ne rek yéen koy topp suñu ay programme fii nag la ñuy tàmbalee actu people yi comme nañu koy defee bés bu ne li ci gën fës nag bokk na ci divorce de bi nga xam ne rek mooy divorce diggante kooku di Mbathio Ndiaye ak borom këram boobule di Baye Ndiaye boobule nag divorce sénégalais ba tey rek noppeeguñ ci di ci wax ba tax na rek ku ci mel ni rek daa bàyyi gannaaw da ko rek daal ay kàddu yu dëgër ne ko changé na te bëgg na rek sëy nee na yooyu moo tax rek mu daal di koy boole càmmiñam boobule waaye dafa gis rek ni kooku di Mbathio Ndiaye fayul naar bi xoromam ndax kat da ko war lépp lu ñu waxante woon rek defu ko ba tax na rek mu déggee boobule divorce moom nee na rek bettu ko benn yoon ndax kat Mbathio Ndiaye di nit ku baax te parewul pour changer yooyu la nag kàddu mu wax moom daa bàyyi soxna Arma Ndiaye kii di Mbathio dafa rek daal di jébbal ab plainte ci ndordom lim koy nag toppee du lenn rek lu dul di diffamation ak yàq deram gi nga xam ne rek def na ko ci réseaux sociaux yi rek daal di wax ci sëy bi nga xam ne rek gisoon nañ ko ñu fësal ko ci réseaux sociaux ci wargal bi nga xam ne rek yóbboon nañ ko maanaam première cadeau ñu gis ci rek kooku di Ngaaka Blindé yóbbul ko soxnaam oto bu yànj ak parure en or boobu leen nag sëy groupe topp ka bu Facebook génnee nañ nag ab xibaar bi nga xam ne rek ñoom ñoo ko fësal ci seen page Facebook waa topp ka nee nañ nag kii di Fatel moom moo sa diggante bi ndax kat Ngaaka amoon na beneen rek xale bu jigéen bu doon génnal te ñoom ñaar rek amoon nañ deux ans day mel ni rek Fatel dafa ñëw rax ci seen biir doon rek waaye ki nga xam ne Ngaaka moom rek moo daal di forcé boobu les relation ba ba tey rek ci seen révélation waat groupe toppka bu Facebook nee nag rek Ngaaka blindé seen dëkk daal di ko fay liggéey ba tax na rek Ngaaka xelam daal di wëlbatu ñëw ci moom waaye rek dolli nañ ci rek ne kii di Fatel dafa rek nekk en état moo tax rek sëy bi Ngaaka daal di koy parax paraxloo yooyu la nag kàddu yi di waa groupe toppka ñoom ñoo ko rek daal di biral ci seen fee ci seen page Facebook laata rek ñu ciy dolli ñoom waa groupe duñu tàyyi benn yoon ndax boobu rek ñoom dinañ ko topp daal di koy saytu indil ko lii di sénégalais yi dañuy rek daal di des ci mbirum Fatel ak Ngaaka Blindé ñu gis ni rek jamonoy meex ak yéen célébré nañ seeni mariage ba tax na rek li koy firndeel du dara dudul ab photo yu yaan nga xam ne moom Fatel daal dina ko biral ci page Instagram ak réseaux sociaux yi yëpp ñu gis ni rek mu daal ci sol li nga xam ne rek mooy tenue traditionnelle bi sénégalais yëpp daal koy apprécier di ko ñaanal rek sëy bu barkeel gannaaw rek yeesal kooku di soxna Aïda Diallo nekkoon rek soxna ci njëm si yàlla Cheikh Béthio Thioune ñu gis ni rek boobu polémique dafa rek daal di wax ci internet yi ba tax na rek kooku di soxna Adja Sali moom rek daal dina génn def ab interview di ci rek weddi boobu lee tuuma yi nga xam ne rek ñu ngi koy teg ci ndodd kooku di soxna Aïda Diallo moom nag soxna Adja Sali nee na rek kii di Aïda Diallo musta xeesal te xamul sax nu ñuy xeesalee tem bu mu am nag du leen du leeru yàlla gi nga xam ne moo ko def ci moom ba tax na rek ñoom ñuy ànd ak ñoom ñoom it dañuy ànd ak moom di belli ci leeru yàlla gi nga xam ne rek moo ko def ci jëmmam jooju la waaye nag xeesal gi ñu koy waxal mosu koo laal tar kooku xamul luy xeesal yooyu kàddu rek la soxna Adja Saliou doon dëggal ci réseaux sociaux di weddi boobule tuuma ñu teg ci kaw soxna Adja Diallo woykat boobule di titi ñu gis ko mu def ab interview di bi nga xam ne rek benn pas defoon na ko ne titi doomam la te titi mosu koo defal dara ci kaw suuf moom nag titi weddi na boobule wax ndax nee na kooku rek xamul ko benn yoon dafa rek jik ci saa gis kooku di wax ci réseaux sociaux ba tax na rek moom deful dara lu dul rek ne pat ndax kat dafa am ay na a baax ay waajuram moom nag nee na waajuram bu góor sax dafa rek génn àdduna loolu rek yàgg na ba tax na rek bu mu gisee loolu jaaxalu wax loole lu muy ñaan rek mooy yàlla mottali xelam ba tax na rek yooyu li kàddu la wax moom nag nee na du ci sori ñu gis ko nag mu def ab interview kooku di doon jéego di wax rek ci divorce Mbathio Ndiaye bi moom nag nee na kii di Baye yàlla da koo bëgg lool ndax kat boobu les sëy mënoon na duré wala illaa sax yàlla may ko ci benn takkandeer te loolu nag du doon li nga xam ne rek da koy gënal ndax Mbathio amul woy bu rafet ba tax na rek ci ay kàddoom nee na rek kooku di Baye Niass li nit yi wax wala li nit yi foog ni kii di Mbathio da mu set loolu mës ta am benn yoon ndax ki nga xam ne rek dafa da koy calculer li mu ko doon may rek ak appartement bi mu ko jëlal loolu wàññi ko dala ci alalam ba tax na rek moom alal bi nga xam ne mi ngeek moom ba tey mi ngeek moom kii di Mbathio musu koo lekk yooyu kàddu rek la daal di wax laata sax mu naan artiste yu ndaw yi dañu war a rek roy ci laam ak njëm si yàlla ndogo bi nga xam ne rek moo nekkoon borom këram te boobule couple kenn mosu leen dégg ci benn wax te kii di Kiné Lam nekk na rek woykat bi nga xam ne ab ndaanaan la na rek xale yu ndaw yi jël ci ñoom exemple Balla Gaye 2 muy addu rek ci mbir bi nga xam ne doon nañ ko wax ay nitam ku ci mel ni rek Aziz Ndiaye Ketchup ki nga xam ne mooy ñaaxarañ lo moom nag ne na sénégalais nañu bàyyi rek di wax seen wax ju ñaaw jooju ndax kii di Aziz Ndiaye lii di làmb moo ko ko gën a xam te moo ko dàkk bëri fop Aziz Ndiaye mënu koo wax li nga xam ne rek da koy indil gàllankoor gàllankoor te rek defet moo na doon na ñëw moo tax mu am defet mais moom musuta ànd ak nit yi xam ne rek dañ koy um toftal ci rek ne bu ñu bëggee yàq kii di Aziz Ndiaye du si turam rek lañ koy jaarale Ameth Thiou ñu gis ko ci interview muy ñaan rek ñi nga xam ne ñooy artistes yi te nekk rek ci showbiz bi nañu xoolaat bu baax nu ñuy doxalee xam ne rek àdduna dara xaju fi te ñoom ñëpp ñoo bokk nday ak baay waaye ñoo bokk tamit aar bi ñuy def showbiz nee na dëgg kooku di Papa Ndiaye Thiou jàmm la ko yéene te seen diggante tamit jàmm rek la war a am laata rek mu naan ko na ñëw këram mu daal di koy teral te bàyyi rek wax ji nga xam ne da koy wax te diggante bi dafa war a rek sincère DG le Sénégalais de Milan ñu gis ko ci vidéo muy addu ci mbirum bis moom nag nee na nu mu gisee showbiz dafa teey xelam ndax kat xale yi nekkuñu ci showbiz bi lu dul yàkkante ba tax na rek nee na showbiz bu démb ak bu tey dafa wute lool moom nag nee na xale yi woyatuñu lu ñuy nekk di def du leen lu dul lekk ambiance ak utum buzz ci réseaux sociaux yi laata rek mu naan musique baaxul dool ci rek kii di Kéba Seck ndaanaan bu mag la te xam na ko lool moom nag nee na lu mu koy conseillé mu dem rek fental boppam ay woy te bàyyi rek woy jàmbur yi nga xam ne da koy reprendre ci ay soirée voilà mbokk internet enquête 221 lii nag bokkoon na ci lu gënoon fës ci actu people yi di leen ñaan rek ngeen gën a continuer bàyyi xel suñu chaîne YouTube bii di enquête 221 et merci de vous di leen jox dig daje ba suba incha allah.